dafa jàll ci di wax nag ay xeeti muñ yoo xam ne yu mat a fonk la te góorgóorlu ca bokk na ca bakkanu doomi aadama yàlla da koo bindee fuqale fuqale goo xam ne mën naa tax mu ñaawul teggiin digganteem ak boroomam kon nag mu xam noonu yàlla bindee bakkanam ci fuqale di téye bakkanam di ko yemale fa mu war a yem balaa àgg ci ñaawal teggiin digganteem ak boroomam muñ googu muñ gu jafe la te muñ gu réy réy guñ mata góorgóorlu jaam bi am na ay teggin yoo xam ne daa dox digganteem ak boroomam te wàññi woon na ca gannaaw ab lim ci ñoom bu ne nag mu muñ ba rafetal teggin yooyee war na ci góorgóorlu lu jafe la waaye na xam ne rek lu jafe lu am njariñ la bokk na ci xeetu muñ nga fexe ba alal ji la yàlla dénk nga di ko def ci yoonu yàlla gannaaw boo joxe farata ci alal ja ba noppi la des te loru woo ca nga dimbalee ko ña ca loru te yàlla tax bañ a ragal rek te bañ a ragal ne su ma ko joxee kat mën naa am jamono soppiku ma ñàkk déedéet da ngay joxe rek te gëm la yàlla ne wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuxlifu wa huwa xayrul raasiqiin lu ngeen dundalee te yàlla tax yàlla leen koy wuutalal ndax yàlla moom mooy wërsëgal ñëpp ñëpp bokk na ci xeeti muñ yi feddliku lool muñ ba ko amel àq ku ne nga jox ko àqam ba mu mat moom sax mën naa dem ba soppiku farata di waru gar ndax àq ja nga amel kooka bu fekkee ne ju war la ni ki bor moom dafa diis lool bañu ne bu fekkoon ne nit mën naa dee ay deey dee nit ki jihaat ci yoonu yàlla ñu rey ko ca mu dellu jihaataat ci yoonu yàlla ñu rey ko ca mu def ko yoon yoon te nga xam ne benn rey rekk ci yoonu yàlla digg nañ ci àjjana kooku ñu rey ay yoonu yoon ci yëkkati baatub yàlla balaa dugg àjjana bu fekkee ameloon na kenn bor faaw mu fay ko rekk dooru dugg àjjana am na xadiisu jaabir ibnu abdillah bu al imaamu ahmad nettali ci musnad mu ne yonent bi nee na bu ëllëgee yàlla day pang mboolem jaam ñi kenn ku ne mel na ko yaayam jure woon nga xam ne bu dee ku duggoon néegu góor sax lañ dindee woon ci sawukaayam day dellu si mel ne mësta jaar ci néegu góor ñépp rafle kenn du yore dara dara sunu boroom dal leen di woo ci kàddu goo xam ne ñépp a koy dégg ka sori dana ko dégge ne ka jege dal di wax ca kàddu ga ne man dey maay buur te maay faykat bi nga xam ne ku ne maa warlu fay la lañu la war a fay daldi ne ku bokk ci waa sawara te fekk ku bokk ci waa ajana ameel ko àq na taxaw ma fayul ko àq joojee bala moo dem sawara ku bokk ci waa ajana itam te fekk ku bokk ci waa sawara ameel ko àq na taxaw ma fayul ko àq ja ba mu jot ca balaa dem ajana ñu ne waaw ndegam kenn du fa yóbbaale dara nu ñuy fayee bor mbaa àq ñu ne su boobaa ay yiw ak ay ñaawteef rekk ca la ñuy fayu xantee ku ameel kenn te am yiwum ko faye da koy faye aw yiw su ko amul nag ñu jël ci ñaawteefu kookee mu waroon a fay te amul lu mu ko faye teg ko ko moom mi waroon a fay te amul lu mu faye bokk na ci xeetu muñ gi am solo lool njaboot gi la yàlla booleel nga muñal leen lépp lu bàyyi ko ci ñoom ci lor jëm si ci yow moo xam wax la moo xam jëf la nga jéem koo muñ ndegam ci sa wàllu bakkan rek la yem bu dee nag dañoo xotti ormay yàlla moom war ngaa taxaw temm ci def ca la nga man ba mu deñ ndax nee na ci biir njaboot gi kat mën nga cee amee yàlla na nga cee amee yàlla nag yetti anam la yoo xam ne yemoowuñu am na bu ca féete kaw am na bu ca féete suuf am na bu ca nekk ci digg ba ba ca féete kaw mooy nga gërëm yàlla mi nga xam ne moo la booleeg njaboot gi wakirlu ci moom xam ne rek ndegam moo la téeñal yan la njaboot gi du la seetaan faaw rek mu dimbali la ba nga mën a yenu yan bi kon gërëm yàlla bañ koo xarab ci lim la booleeg njaboot gi te wakirlu ci moom jàpp ne lépp moo la ko yenul mooy anam ba féete kaw ci nga am ngërëmul yàlla ci sa njaboot anam ba ca topp nag te nekk ci digg bi muy ñaareel bi mooy nga taxaw ci dundal leen topp ci ndigal yàlla mi nga xam ne moo la digal nga dundal leen di moytu am ba noppi bañ leen a dundal na mu yelle bu ñetteel bi nag mooy bu mu yem rekk ci dundal leen waaye na am ci ñoom yitte bu baax a baax ndax da nga gis koo xam ne yàlla may na ko wërsëgu bare bari ba lam ko sant ci dundale ma ngi koy def waaye taxul nag mu am yitte ca njaboot ga am yitte lu am solo la kon bu la yàlla dénkee njaboot nga gërëm yàlla mi la booleeg njaboot gi wëkkil lu ci moom xam ne moo la ko yan te moo lay dimbale muy benn nga dolli ci di leen dundal kem sa kàttan te yàlla tax ñetteel ba nga boole ci may leen yitte te yàlla tax loolu mën nga ci amee yàlla amee ci ngërëmam amee ci tuyaabaam lu dul jeex ba tey njaboot gi sa bakkan mën na amu bëgg feneti ñàkk am cawarte ci ñoom waaye dangay fexe ba bañ a geestu rek nañu mel moom daal bu fekkee nañu mel naqari na la waaye ci sa bakkan dong la dara yàlla nekku ca na nga muñ rek téye leen bu baax te sàkku ca ngërëmul yàlla bul geestu lañu wax ak lañuy def te nga xamee ne yow rek lay naqara ci sa bakkan waaye ajuwul ci xëtt ormay yàlla ndegam daal loolu ajuwul ci xotti ormay yàlla rek moom na nga ko jéem a muñ jéem koo dékku te sàkku ca ngërëm rek bokk na ci xeeti muñ yi am solo lool bu la yàlla bu la yàlla mayee nga mën a feeñal karaama mbaa mu may la man-man boo xam ne boo ko wane woon ñu yéem la ca nga muñ rek bañ koo feeñal lu may nag la tax nga feeñal ko yàlla la ko digal wala day dellu ci yëkkati shariha ak delloo nit ñi ci yàlla bokk na ci muñ gi am solo bakkanub doomi aadama day bëgg ku ko sant bëgg ku koy tagg bëgg kilifteef nekk ci kanam bindeef yi nekk ci gannaawam jaam bi nag téye bakkanam bañ a bëgg ak cant bañ a bëgg aw tàgg nekk ci gannaaw gënal ko nekk ci kanam loolu des koy muñ di ca góorgóorlu te muñ gu rëy rëy la bokk na ci xeeti muñ yi nga xam ne ab jaam war na ci góorgóorlu mooy bakkanam day day bëgg siiw waaye nag nay muñ di ko jéem a téye ci ak làqu ak ñàkk siiw akuk wayaflu ba tey bakkan day bañ toroxte waaye na koy woyofal bu mu ko taamul la muy taamu ci lu muy lekk mbaa lu muy sol mbaa fu muy tëdd la ca bakkan bay taamu bu mu ko ci fekk na ko xaw a def ne mbaam rek nga xam ne la muy sol ak la muy lekk ak fa muy fatu nu mu mel rek baax na ci moom na def noonu ndax gën a fonk gën a fullaal alaaxira mee nga xam ne moo am solo wan gannaaw àdduna mi nga xam ne moo xeebu lool day def noonu it te jublu ca gën a jegeñ yàlla mi nga xam ne mooy boroomam te moo mën a faj aajo bañ a soxla mbindeef yi geesu ko ndax xëy na su defee noonu àgg ci woyofal dundinu àddunaam noonu mën naa am mbindeef yi moom lu ñu sawar ci jaxasoog moom ca noona waaye nag moom na gënal jegeñ boroomam na ko ëppal solo ci jegeñ lu bokkut ak boroomam ci melo woowee ca lay wane ne man day jëwuma xëccoog saa boroom dara ci nguuram gi moom rekk mooy buur man nag jaam bu xeeboo xeebu laa te bu melee noonu nag dal nay doon dëgg-dëggi jaamub boroomam te ci loolu la ko yàlla yëkkatee ba ca daraja ja gën a kawe bokk na ci muñ nga fexe ba boo defee lu baax di ko nëbbu ni ngay nëbbe say ñaawteef rek nga di nëbbe say baax baax te yàlla tax bokk na ci muñ gi ëpp solo ngay aaye sa bakkan la mu bëgg ci xeeti bànneexi àdduna ndax bu ñu nee xeeti furu yi maanaam xeeti doom yu neex yi lekk ko baax na yokki ko sa dund ndax nga gën a wér gën a am jàmm loolu saye boo aaye ko sa bakkan ndegam man nga ko ndax bakkan bi bu tàmmee neex-neexi àdduna yooyu di cëpp day bëgg a fooy te it du bëgg a dellu ci alaaxira dellu ci boroomam kon xeeti yu neex yooyu araamut ndegam am nga ko ci anam gu dagan waaye bu dee ku ko mën a bàyyi nag aaye ko bakkanam la muy lew-lew loolaay gën ca moom loolu sax buñ koy wax mooy bu dee aw ci yoon wi te àggagul ci ngërëm àgg ci boroomam bu xasee àgg ci boroomam ba gisatul lu ma yàlla moom dara du ko yàqalati mën nay jëfandikoo xeeti bànneex yépp te da koy dolli ak yéeg waaye du ko wàññi dara bokk na ci muñ gi am solo lool looy def ci lu baax rek ci xeeti saraxeeg joxe sa alal nga fexe ba nëbb ko kenn bañ koo gis ku may yàlla mi nga xam ne dara mënu koo làqu ndax nee nañu nëbbu alal jooy joxe ngir yàlla ni ki saraxus coobarewu ak yàlla teg la balaa wala metit nga nëbb ko bu mel ne yàlla tegu la balaa tegu la metit yooyu nee nañu lu nit di yaakaar ëllëg tuyaaba rek yooyu ko ëpp tuyaaba ëllëg foofee fa yàlla bokk na ci muñ gi am solo lool yàlla teg la ñàkk nga muñ ñàkk ga ba ko la gis defe ne yaa ëpp la ñëpp loolu nag nee na lu jafe-jafe la ñu bare bari bu ñàkkee lool lool daldi salit nee na nag li gën ci xeeti muñ yi te gën cee jafe mel na ne mooy muñ ci toogaaleeg yàlla muñ ci toogaale yàlla nag mooy jëmmam gisoo ko waaye foo tollu bàyyi ko xel ne moom mi ngi lay gis sayite jëpp nga jëmale ko ci moom boo tiitee ak boo tiitut boo amee ak boo ñàkkee ak lu mën di xew daal moom foo tollu yaa ngi koy bàyyi xel ci ne yaa ngi toog ak moom sayite jëpp ci moom rek la jëm bokk na ci xeeti muñ yi ëpp solo te ab jaam war a jëm ñu bañ ko caa ëppale muy muñ muñ koo xam ne sopp yàlla doo nga tax ak rus ko muñ ngir sopp yàlla ak muñ ngir rus ko lu rëy rëy la muñ ba àgg ci sopp la yàlla dogal moom bokk na ci yi gën a jafe ndax muñ rek ba àgg ci bu yàlla dogalee mu neex la yombut waaye nag sopp dogal ba ci boppam moom sopp la yàlla dogal lu jafe-jafe la moom nag nee na mooy saa yu yàlla dogalee rek moo xam ci zahir day njariñ mbaa muy lor daldi seere ci xolam ne coobare yàlla kat moo tax lii am teyit yàlla foxantuwut du jaar fu dara nekkut lii mu dogal ñàkkul xikma bu tax mu dogal ko teyit dalu cee jublu natt rekk ndax yàlla fu mu toll di nattu ay jaamam ba xam dëggu nañu wala dëgguwuñu mu boole ci seere ne loolee yàlla dogal nag ak lu mën di am rek moom xéewal la gum ko xéewale bu dee ci mooma bu dee keneen nit mbaa ñeneen nit xéewal rek gu jëm ci ñoom noonu ku ko def kon àgg na ci sopp dogal ba yëwul rekk ci gërëm dogal ba